ok jërëjëf donc man maa ngi tudd Maguette Niane nekk responsable régional ci projet bu ñuy wax voix et leadership des femmes nekk ci goxu goxu centre bi dëkk bi nekk ci région Fatick Kaffrine Kaolack ba Diourbel euh, projet bi tam projet boo xam ne juróomi at la war a liggéey Sénégal nekk projet boo xam ne lu ñuy wax centre d'études et de coopération internationale di ceci moom moo koy mettre en œuvre mais ci ndimbalu gouvernement canadien mais jaarale ko ci affaire mondiale Canada nekk projet bi nga xamante ni mi ngi liggéey ak vingt cinq organisation de la société civile de femmes ci biir vingt cinq yi dañ ci am vingt organisations de la société civile de femmes ak cinq réseaux d' de la société civile de femmes ñu nekk nag ci territoire sénégalaise bi yëpp ci jàppale gi aussi projet bi mu ngi xeex lépp luy àkk ak yelleefu jigéen mais tamit Euh, inégalité bi nga xam ne am na diggante góor ak jigéen ci fànn yu bëri moom aussi mu bëgg ko relever ba nga xamante ni jigéen ñi ak xale yi ndaw yu jigéen ñi dinañ leen mën a jox seen àq bu baax mais pour mu arriver ci résultat boobu mi ngi ko bëgg a jaare ci ñetti pàcc parce que dañu gis ne organisation jigéen ñi dañu am solo trop trop trop ci liggéey bi nga xam ne moom mooy suqali jigéen donc ñooñu dafa soxla ñu jàppale leen suñu bëggee ak ak yelleefu jigéen jëm ci kanam nuñ leen di jàppale mooy dañu gis ne ay organisation la yoo xam ne ñu ngi fi di liggéey depuis des années mais amuñu assise institutionnelle

nekk partenaire projet bu mu tudd AFDD donc tey am na bureau te amul woon bureau tey am na personnel permanent amu ko woon loolu lépp projet bi di ko si jàppale beneen jàppale bi moom mooy nan la ñuy def ba organisation yi di gën a mën a jëriñ seen askan muy lu ñuy wax offre de service donc loolu bëri na liggéey buñ ci def mais dañu leen fexe ba wan leen ne yéen service yi ngeen di offrir lii la donc bu passé service yi ñuy offrir lii la donc ñu jàppale leen aussi ci ay financement yoo xam ne day tax ñu mën a offrir service yooyu yàggul dara am nañ fi partenaire muy AFDD ñu équipe prison Diourbel bi donc ça ne fait pas deux semaines ñu équipe prison Diourbel salle polyvalente au bénéfice des femmes loolu moom mooy offre de service ñu ciy jàppale organisation yi beneen pàcc bi mooy réseautage ñu booloo nekk benn parce que dañuy wax ne boo bëggee gaaw da ngay dem yow kese mais boo bëggee sori da ngay àndandoo ñu bëgg na organisation jigéen ñi andando waxandoo ñu mën leen dégg donc réseautage bobu aussi organisation projet bi da ciy liggéey bu baax ba tay ji identifier na lépp loo xam mi ngi nekk loi ak disposition boo xam dafa discriminatoire à l'égard des femmes wan ko réseau yi réseau yi aussi ci base boobu ñu mën a choisir seen ay thématiques de plaidoyer mais aussi ñu jàppale leen ci xaalis ak xam-xam pour que ñu mën a porter plaidoyer boobu donc globalement ci loolu la organisation bi liggéey mu am quatre fonds yoo xam ne si lay jàppale organisation yi pour ñu liggéey ci fonds yooyu bokk ci lu ñuy wax fonds rapide réactif nga xam ne boobu organisation partenaire ak non partenaire yëpp da koy mën a jëriñoo fonds boobu tey moo ñu indi ñu mën a jàppale groupement bi di groupement des femmes pour le développement de Diourbel muy war def projet bu ñuy wax vulgarisation euh, de la loi criminalisant le viol ak la pédophilie ñu koy waxe lu xam le lu yoon wax ci ku sàkku nit donc ñu xam ne dafa am njëriñ parce que région de Diourbel tey boo jëlee Sénégal ba mu daj région yëpp moom moo ci gën a nekk moom moo nekk ci kaw ci ma matière de violence ñuy wax ne téeméer boo jël juróom-ñett fukk yi jigéen ñi dañ lee dañuy dañuy subir ay violence donc loolu aussi gën a tax ñu gën a sawar pour mën a jàppale ñii mais ñu gën a sawar pour jàpp parce que ay xale lañ te projet bi dafa jox cër bu rëy ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw ñu muy la relève intergénérationnelle donc daal ci tënk loolu mooy li nga xam ne tey moo ñu fi indi merci asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziare moi je m'appelle Assou Diagne le secrétaire général du GIE groupement de femmes pour le développement de Diourbel di ñëwoon di wax ci quelque mots rek concernant projet bi di wax ci suñu baatu présidente maanaam li nga xamante ne moo ñu xaaj ci projet bi depuis bi ñu projet bi dañuy avant ñu koy déposé dañuy waxoon ne dañuy def benn projet boo xamante ne day pertinente boo xamante ne day méngoo ak. réalité yi nekk si dëkk bi ak li nga xamante ne moo nekk jour maanaam actualité la léegi bi ñu xoolee loolu si lañ gis ne dañoo yëgoon dañoo amoon benn loi bu ñu changé ñu le la le viol et léegi du moment ak nag coronavirus bi tax information yu bëri demul ak activité yu bari ñu baare ko léegi si lañ yokkoon xalaat daal di jël si projet boobu si la ñu yi ñu jël si première léegi na projet boobu suñ partenaire suñ partenaire VLF bëggoon ñu après bu ñu gagné projet bi ñu def ay activité ay causerie ñooy bëgg a def quatre causerie causerie bi si njëkk moom ci enfant ñu def ko deux jours jeune deux jours adulte deux jours ak les personnes handicapées ñu tas ko si quartier yépp waxtaan si jàllale information bi indiwaat xel yi ba nga xamante ne ñi nga xamante ne dañoo am xalaat yooyu dinañ changer duñ wax ne dañ ko fi jëlee complètement mais dinañ changer lu bëri si askan bi loolu lañ ñëwoon nag tey di ko résumer di leen sant di leen gërëm wasalaam. lu li tax ñu taamu viol léegi ñun avant ñuy déposer projet bi dañuy wax ne dañuy jël projet boo xamante ne dafa innovant léegi bi ñu xoolee ba xool bu doon guddi yu ñu toll la bu ñu waxee thème bi ñuy jël mooy mbëkk mi la ñuy jël ndax instant yi tamit mbëkk mi actualité la mais moment bi ñuy tànn projet bi dañu xool def ay recherche ñu def euh, recherche yu bëri ñu xool ne am na benn loi boo xamante ne dañ koo promulgué muy viol ak pédophilie léegi si lañ si lañ yokkee jël thème boobu ñu traité ko si lañ ñu sélectionné. ndax si membre yi nga xam ne moom moo sos seen seen seen seen kuréel gi dafa am ñoo xam ne dañoo subir euh, lu mel noonu di jàpp ni Diourbel dafa mën nañu jàpp de cas yi bëri na fi donte xamuñu yëpp sax mais ñun tamit si dëkk bi lañ dëkk jéggaanewuñu fi lañ juddoo fi lañ màggee ba toll nii am na yu bëri yoo xamante ne bu fi xew dañ koy fekkee comme li ñii di wax naan des fois da ngay gis violence ci famille violence parentale ñu koy tuddee ay l'inceste maanaam nga sàkku sa doomu jiitle wala pap yaay affaire yooyu léegi yooyu dafay bëri léegi moment ci famille bi la nekk ñu bari dañuy rafetal daan bu jëmee kër xam nga mbokk gi tas yooyu léegi yooyu noonu nag si lañ ñëwoon di waxtaan ci nañ koy gis phénomène yu bari si askan bi ci gox bi. des fois comme am na ko ko laajte si salle bi nee na parfois da ngay gis jigéen yoo xamante ne day comporter sol yenn yëre yi. te nga dem seeti benn góor ca li ñuy wax naan góor góor la mën a doon am na yoo xamante ne mun ko résister ca diñ naan jigéen tamit day rëbb bu rëbb day du sooy affaire yooyu léegi ñun tamit dañuy waxtaan suñu biir comme que groupement féminin la ñu waxtaanaat léegi bu ñu waxtaanaat jéem a xool comportement yi li si njëkk mooy comportement yi xool solin wi ak doxalin bi ak ni ñuy defee. su ngeen amee victime euh, ban accompagnement ngeen di def. léegi fii am na kuréel yoo xamante ne dañuy xeex àq ak yelleef jigéen yu mel noonu bu ñu ko yëgee dañuy dem ci ñoo xamante ne ñooy responsable bi ñu dem ñu waxtaan ak ñoom wax leen fan ak fan la ñuy jaar. lan ngay wax seen mbokk sa mbokk jigéen yoo xam ne leeral la na pour bu mel noonu soo amee ñu am fu ñu ko jooyantee. léegi comme tey bi ñu defee cérémonie de lancement bi bari nañu bari ñoo xamante ne bokkuñu ci GIE bi ñoo dëkk wër koñ bi léegi bu ñu ñëwee information bi liñ ne am na ñoo xamante ne euh, bët day nettali li fi jëlee bu ñu demee dina ne lii ak lii wak laa léegi dina fi jëlee yenn information yoo xam dina leen mën a permettre ñoom ñu jàllale avant que causerie yi di ñëw. ndaxte pare ngeen pour dénoncer ñi nga xam ne cas yi nga xam ne da ngeen koy détecté léegi gannaaw sensibiliser nañ leen si loi bi di ngeen dénoncer ba ñu yóbbu leen tribunal bu daam leen. léegi ñun xam nga lu nekk dafa am ku ko ku ko yayoo ak lu ko moom ñu GIE lañ am li ñu sant moo ñu def ay causerie sensibiliser léegi ci biir causerie yooyu dina am mbooloo yoo xamante ne dinañ daje xam nga duñu xamante noo am na ku am cas de viol wala yéen doo xam foo koy jooyee. léegi boo ko orienté génde ko léegi bu ëllëgee bu amee lu mel noonu dina am foo xamante ne dina fa demee wax ay soxlaam te lépp ci sutura lay doon bañ fajal ko li mu bëgg. voilà donc si olof yaakaar naa jël mooy dellu si présentation bi voilà donc euh, tey dañu ci woowoon euh, ci turu procureur Aly Seydi Ndiaye mu yebal ma man mii di nga xam ne man mooy adjoint am du Mamadou Seydou Diawo di substitut am euh, pour ma ñëw teew ci atelier bi pour waxtaanee. li yoon ci li yoon wax ci wàllu ku sàkku nit alors baatu sàkku nit jéem nañ ko nag faram fàcc ndax suñu olof matewul noonu sàkku nit bi boo ko déggee mooy sàkku ko soit si li nga xamante ne moom du si coobareewam wala léeg sax mun na doon si coobareewam waaye du tee sàkku sàkku boobu nga ko sàkku yoon daf lay daf lay daan lu mel nii si si si bi ndax pour li ñu tuddee baatu pédophilie bi ki sàkku nit moo xam saa jot na ba ba jote am ci sey ak moom mbaa ngeen yem rek ci fóon mbaa raay ak yu mel noonu euh, pour wut ci wut ci bànneex euh, loolu yoon da koy da koy daan daan yu yu yu bu dee pédophilie bi la cinquant la euh, cinq ans la ba dix ans de réclusion criminelle réclusion criminelle boo ko déggee nag xeetu peine criminelle la boo xamante ne tëdd kaso la lu moo ko niroole ak li fi nekkoon waaye am na leneen li ci tukkee mooy ne que nit ki du yem rek ci tëddaay kaso boobu noonu ndax dafa am yeneen yeneen yeneen droit am yi ñu koy xañ mu dem ba li nga xam ne alal boppam sax yi nga xam te moom mooy alalam du ko mun a jafandikoo ci nu mu ko neexee lu dul lu mu mun a dundee rek du mun a du mun di maye mbaa du mun di di di di ñu koy may moom te également dañ koy tere. muy bokk si laa daanaka si lépp li nga xamante ne société bi euh, citoyen dañ koy dañ koy dañ koy cay bokk ay élection walla ngay voté mbaa en tout cas ñu ñu voté yow nga nekk candidat donc loolu moo wutale euh, penu loi bii nii nii ak ak peine prison yi nga xamante ne au passé lool noonu la doon demee viol bi naka noonu viol bi aussi wax naa ko sànq si français mooy peine yi mu ngi tàmbali ci euh, fukki at fukki at réclusion criminelle mu dem ba tax réclusion criminelle bi mun na dem ba sa diiru dund mooy nga nekk kaso sa diiru dund ak ñu xañaal la yeneen droit yi nga xamante ne moo ci moo ci moo moo ci topp. léegi nag si jataa bi nag xaw nañu waxtaanee laaj nañ ma si wàllu euh, naka la ñuy defee ba di ñëw si si yoon ndax dañu gis ne euh, nit ñi duñu faral di ko siiwal loolu lu ko indi nag mooy bu xewee ci mbirum famille bi waa famille bi dañuy xalaat ne. Euh, xëy na gàcce bi lañ ciy bañ wala en tout cas di sóoraale ne parce que jarbaar bi ci ci kër gi moo ko def euh, cousine am bi ci ci kër gi loolu mooy tax duñ ko faral di def wala léeg-léeg également duñ ko yéex dañ ko yéex a def te dem na ba ci nga xamante ki nga xam ne moom lañ ko def moom si jëmi boppam euh, laataa muy muy muy dem ci yoon dafay fekk lépp lu luñ mënoon am preuve ci moom deñ na ndax dem na sangu ji bu sangoo Bude bude nyak eh, nyak kiko kiko kiko ko ki ki ko violé amoon na ci yaramam loolu dootuñ ko dootuñ ko dootuñ ko mën am bu fekkee ne borom solon na eh, li ñuy wax préservatif te bàyyiwul mànniw si mom bu ko xool yoyep yëpp mun na tax bu waji ji weddee eh, donc loolu dina jafe ñu ñu ñu indi firnde ne waji mom mom moo moom ko def yoyi dal xëy yo yoo si yooyu moo si nekk jafe-jafe te wàllu bañ a bi loi bi normalement puisque li viol légui crime la ku ko yëg te siiwaloo ko yoon mun na la topp mais ba mu des waajur yi loolu yoon tamit moo maye ne waajur bañ a siiwal euh, li nga xamante ne xëy na si si si njabootam la la la la dem donc yooyu yëpp ay jafe-jafe yu nekk si si si si loi bi yoo xamante ne xëy na ak vulgarisation bii nag xëy na dina ci am jeexital ndax ñoom bu ñu demee ba wax nit ñi yëpp wax dëgg lan moo nekk ci loi bi yaakaar naa ku ci nekk dina xam euh, naka lay taxawee rawatin si wàllu pédophile bi ndax lañ ciy gën a am. tribunal nga xam ne day dem ba si cappaandaw ga waajur xale yi xale bi jigéen bi euh, ndax moo ci gën a bëri euh, day fekk xale bi jigéen bi nee na man man dama koo bëgg damaa bëgg ñu seeyal ma seeyal ko mais parents yi ñoo ma ko nangul may man moom violé ma fekk nag du viol mais pédophilie la ñuy wax foofu foofu daan dafay dafay diis mais dafay fekk euh, xëy na góor bi bu amoon patience mu bañ a jote ak ndaw si dara mu xaar ba mu ñaan ko sey ba mu am fukki at ak juróom benn yu mat après mu doog ko takk xëy na foofu dara du ko doon fekk donc xëy na loolu moo tax vulgarisation bi euh, am solo pour nit ñi xam ñu bañ a yàkkamti xale góor yi bañ a yàkkamti di sekk ak seen euh, seen coroy si laataa ñuy am fukki at ak juróom-benn. voilà waaw cas de pédophilie moom euh, ak ak viol léegi cas viol ak bi à partir de nouvelle loi bi si nouvelle loi bi nii bi viol bi viol doonee crime ak pédophilie également doonee crime ba léegi mosaguñ si atte cas mais ñu ngi instruction. ndax xam nga crime su amee donte ne sax nit ki dañ koo jàppoon ñu fekk ko si kaw waa ji euh, si kaw ndaw si par exemple duñ ko mun atte gaaw gaaw il faut ñu yóbbu ko instruction dañuy jël dossier bi bu enquête bi jeexee police wala gendarmerie ñu jox ko benn juge d'instruction mu dem saytuwaat dossier bi kooku su paree liggéeyam nag bu dee waa ji dañ ko war a effectivement jëbbal am na ay firnde yu wane ne waa ji moo def jëf ji ñu war ko jébbal chambre lu ñu naan chambre criminelle boo xamante ne moo ko nar àtte jamono ji amoo euh, amaguñu d'abord dossier bu war a am bu jàll chambre criminelle ndaa yu loi bi yàggul 2020 bii la tàmbali donc dossiers yi ñëw si diggante bi yëpp pareeguñu ba ñu war leen mun a àtte du du lu yàgg dinañu def chambre criminelle mais euh, jàpp ma ne ay ay kaawu viol amagu ci mais dina am xam naa du yàgg kaawu viol yi nga xamante ne moom moo am te mu nar a jàll chambre criminelle mais nag bëri na quand même na euh, yu ñu ci am actuellement